dañu ñëwoon dëggal li nga xam ne moom lañu président santoon ak académie des sciences parce que dafa ma oowoon mu ne ma dama bëggu fi nga xam ne moom ngeen di tabax tuuri Senelec yi ngeen jël si ngeen jël académie des sciences tegaat leen ci adresse boobu ñu nekkoon maanaam si rue bu ñu nekkoon moo tax si immeuble R plus bi nga xam ne moom la Senelec nar a defar ñu jël les deux niveaux mu nga xam ne moo nekk 1200 mètres carrés yoo xam ne moom lañ leen di jox pour mu nekk pour ñoom ay salle de conférence ak ay bureau yoo xam ne dinañ ko mun a jël équiper ko loolu nag seneleg daf leen koy jox mu nekk seen titre foncier boo xam ne ñoom duñ si fay dara te équipement yu fa war a dem yëpp comme ni ñu ko président santé seneleg moo ko fay def ba pare jox leen ko pour permettre leen ñu gën a mun a liggéey ci condition yu gën a baax période bu ñuy tabax immeuble bi nag Senelec mooy jël luweel leen feneen foo xam ne dinañ fa mun a nekk ba continuer seen activité le temps que sa kii bâtiment bi pare pour ñu mun a ñëw jël seeni i locaux. Euh, ñuy rafetlu nag bu baax a baax a baax a baax a baax nu directeur général Senelec di liggéey. ndax mbir mi gaaw na motul benn weer te tënk nañ ko wax ko nuñ ko war a waxee ba ànd ci kàddu ba tey mën a signé ah agent de l'État yooyu nag foo leen dis da leen war a sargal ndax dëkk pour mu taxaw il faut nga am ay agent état yoo xam ni ak ay directeurs généraux yoo xam ni am nañ dégg-dégg am nañu tam ay pexe pour seen dégg-dégg ñu seet naka lañuy ñu mën a fexe ba samp kon vraiment euh, directeur général bi tey ñu ngi koy sant di ko gërëm am nañ yaakaar tam ni lii ñu sumb tey du yam fii dinañ continuer liggéey ak ñoom ndax nu ko sama président Ousmane Kane waxi léegi mooy seen président section académie euh, mbirum électricité moom dafa doon lu tubaab di wax intrant stratégique de développement xam-xam tam dafa doon intrant stratégique de développement kon doo boole ñaar ñooñu war nga mën a tabax loo xam ni dina doon njariñu askan bi